diggante ñaari télévision yu mag yi di 2STV ak TFM ñoom ñaar nag seen xëccoo gi métti na te yàggul lool El Hadj Ndiaye gannaaw ba nga xamante ni defoon na sorti fan yi la génn yekk lu mel ne xamee ki nga xamante ni di Youssou a topp waa TFM yi ci bi ne TFM ci boppam lay topp waaye dafa defoon plainte contre X léegi nañ ba xam naka la El Hadj Ndiaye mii def ba xam ne TFM ci boppam ñoo doon sàcc fréquence yi ba yàq li nga xamante ne moo di qualité ay léegi leer na li nga xamante ne nii moo di commandant Adama Niang ba nga xamante ne moo di El Hadj Ndiaye bu 2STV dafa gaawantu dugg ci ab enquête lijjanti ca dëgg-dëgg lan moo tax fréquence su 2STV yi ñu koy sàcc ak ñan ñoo koy sàcc commandant Adama Niang bu section de recherche gannaaw gi ci la jéem a ki nga xamante ne moom mooy directeur juridique bu Eutelsat ndaxte moom dong moo mën a wax ci li nga xamante ne nii mooy coow lii 2STV li ñuy jiiñ waa TFM dëgg la wala déet ki nga xamante ni mom moy mooy directeur juridique bu di wuyoo ci turu Michael Fredlich, mom ci bopam moom moo mujj revenir ki nga xamante ne di commandant Adama Niang bu brigade de recherche xamal ko ne ko nag dëgg la El Ndiaye li muy wax ne dañuy sàcc ay fréquence am dëgg la te ñi koy def du ñenn ñu dul waa TFM Michael Fredlich, mom nak lettre bi nga xamante ne nii jox Adama Niang nek commandant brigade de recherche le 25 mai 2021 ci le ko ki nga xamante ne di commandant Adama Niang bu brigade de recherche recevoir lettre bi dat kay saytu xool xam ne FM ci boppam ñoom ñooy sàcc fréquence des 2STV ci la gawantu daal di bind lettre mom tamit def ay convocation wo ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo di wa FM bokk na ci nga xamanteni ne moo di njaganul ak nga xamanteni ne di frère am di Bouba Ndour yëf yi nag fi mu toll nii dafay gën a yaatu ndaxte ni ki demb ci la waa section de recherche def mandat de dépôt nga xamanteni ne moo di njaganduur ba jamono ji moom ci biir kasso bi atay nak nañu japp ni mëna sévère lool ci kawam ndaxte depuis 2018 waa TFM ñu ngi sàcc fréquence des 2STV ba li ni mel Hôtel Michael Friedrich mi nga xamante ni moom mooy directeur juridique bu Hôtel 7 nekk ca diwaanu France dëggal na ko ci lettre bi nga xamante ni jox na ko commandant Adama Niang le 25 mai 2021 ne waa TFM ñooy sàcc fréquence su 2 yi te sàcc gi nag yàgg na loolu ndaxte depuis 2018 la li ni mel nag buñ ci sukkandikoo yëf yi mën na sévère lool ci sanction yi nga xam ne moo nar a ñëw ci njaganduur comme waa TFM est-ce njaganduur dong la ñuy joxoñ baaraamu tuuma ca biir TFM loolu tamit des ndaxte ki nga xamante ni moo di El Hadj Ndiaye waxoon na fi ne ci sorti bële mu xam ne moom du moroomam El Hadj nag ñu bëri ñu ngi wax ni na ci li a merloo moo di élément ko yóbbu ci seen télévision waaye ak lu ci mënti ne TFM ñooy sax ci fréquence am waaye directeur général bu Etel ne moo di commandant Adama Niang bu brigade recherche gendarmerie bu Dakar moom directeur juridique bu Etel sax moom dafa

waaw alaikum donc comme niñ ko xamee singalu Youssou Ndour bu bees bi wàññi ko mu ngi waaj a génn euh, une heure de temps donc euh, donc ñuy vraiment liggéey bi et puis le fait que euh, mu d'accord aussi def encore du studio Nous def vraiment liggéey bu am solo donc wàññi ko mi ngi ce qui ne veut pas nécessairement dire que Youssou Ndour dafay yéegaat sur scène <clears throat> maintenant parce que aussi quoi qu'on puisse dire c'est une décision boo xam mom la impliqué donc euh, te loolu euh, bu koy une décision euh, bu responsable comme nous le ko comme nous mu ko parce que des fois décision yi mu jël dafa am lu ko lu ko contexte bi moo permet. permettre woon moo permettre actuellement donc c'est pas un engagement bu muy jël pour delluwaat sur scène maintenant donc euh, ñu enjoy musique bi ak li ñu liggéey ci studio bi euh, pour li nga xam ne moom mooy Youssou Ndour avec ses concerts et tout ça peut-être que loolu c'est une décision bu muy jël saa yu ko sentiré que ni c'est le moment opportun donc euh, ñuy invité ñëpp ñuy enjoy affaire bi voilà liggéey musique gars yi enjoy et on en a besoin peace dal leen ak jàmm mbokku internet yi El Hadj bu 2STV kaddu yamu yëkkati ca Youssou Ndour jëm ci jàppale gum ko doon jàppale benn gu ci Ndour di Abdoulaye Mané wedi na yo yile kaddu dama bata bataaxalu tontu bu xaritu Youssou Ndour bi def daanaka saf na sap ndax daf koo xorom poobar ko kaani ko teg ca nag dal di cay toqal tuuti lem ñu ne déeta waaye Abdoulaye Mané naan PDG bu 2STV mag day wax dëgg Abdoulaye Mané nee na man xaritu benn bu Youssou Ndour dem na sax ba Ndour kanamab dom bon soxlawul may ñew ci sama diggante ak Youssou nur ak jege ga moko jégé ndax sax nak du loolu moma taxa joko elat njaay bu 2 tv lay waxal ci walu kaddu yi mu yëkëti jëmele ci Youssou nur ben bërepp ba mu wax du ab appartement ab kër la woon té gogulé kër Youssou nur fa nekkon ndem ci yalla Habib ak man mi di abdoulay Mané té ñu gën ma xam ci turu Saint-Louis yow elat njaay ba nga yëkëti sa kaddu yi ni jëmele ci Youssou nur nga xamantene ay kaddu yu nekk ci ginnaw deug la xamone nga ne sama waji du la tont waye xamal le nga xaba bal ba wax lu deug allah ji jamono ja nga doon wax ma nga won ci keur ga ak yusu Ndour ak ndem ci yalla Habib ak kenen ku ñuy wax Abdou Sagna te nak jamais mukk mësuloo fay ben yon ab location yow muso ñoo fat sax lu toll ben waxtu te sax nak xana yow allah ji lolu bu amone waron nga am suturaay nopi walé ko mo gën ngay tok di waxtane su bo ba jant saw amo sutura ablay Mané ma ngay joxoñe barama borom de tv nan ko allah ji allah ji allah ji da nga si biiram da nga is lan mo la mat ba waral ngay doxale ni mu jaral la ngay fent ak bayo ci sa diggante ak yusu Ndour li nga wax du am sax ci gént comme niko samay dom di faral di waxee même pas en rêve te nak xaju fi may ma ma delloo la sa xel ji sa waji ben yon rek kott dong nga mësa liggéey ak ñun ci coproduction wu album bir Sorano bu weesoo lolu lepp lu dox sa diggante ak yusu Ndour duplication de cassette la ak location studio te bu mu mënti don ci yoyu ñaar mayo ñuko ñuko dañ la fay xaliss bu weex tal te itam detaluñ la dara yalla deug la bëgg batay ablay mané wax dé nan ko allah ji allah ji allah ji gëm laq nga lu tollok juroom benn fukki at yu toftal juroom ñent comme ni nga ko waxé waron nga rusa nak di génnee ay kaddu yo xamanté ni du def lu dul di la suufeel waya jappel ni su fekké ni yilé kaddu yi nga yëkëté la nga ci jublu won moy fexé ba touru lëndëm yenn ci ay artiste xamal ni door nga sa bop marto ndax nga sa bop de joom nga ndax nak donte ñun ñëpp andondo nañu maase nangul la sa tek sa daraja bul fàtte ne wa réew mi xam nañ kan moy yusu ndur ak Can muối